برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون ndax yàlla moo ñu digal ñu wax kàddu yooyu mu ne alladina ida asabatum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey métit dëgg-dëgg moo dalati sunu kaw euh, cheikh abu baaxum di muqaddami cheikh ibrahim Niass di taalibe ci buntab cheikh mouhamadul mahdi cheikh ibrahim Niass nekk nit koo xam ne moom mooy xadara bi heure boo gisee cheikh kabbu rek ci lan nga koy gis ci wax lu baax ci def lu baax ci boolente ay mbooloo julit xaqan la taalibe Tidiane xaqan la mu jëlee wérdu wi nag ci yoonu wér ci yoonu Cheikh Ibrahim Niass ma nga dem nag fu baax amee njëriñ lépp lu ñu wax ci baax rek la muy fekk moo ëpp yàlla na ko yàlla dëkkaleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëkkaleeg ak Cheikh na Ahmed Tidiane dëkkaleeg ak Cheikh Ibrahim Niass ndax am nañ ci yaakaar ci loolu danañ ko ñaan comme yonent bi moo ñu wax ñi ñaan yàlla tamit wax ñu ñi ñaan waaye nit la koo xam ne ku xam Cheikh Kabou ci jëf ju baax ci wax lu baax gannaaw bu mo matalee ponkam yi ba pare kon dëgg-dëgg kooku mën nañ koo yaakaaral fa ma jëm niñ koy yaakaara nag yàlla am na lu ëpp lool yàlla na ko yàlla yërëm ta xaaree ko aljana salaamaaleykum wa rahmatullahi min ashaitan irajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alqail alladina ida asaabatum musibatum qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam eh, tey xol yëpp dañoo fees waaye dinañ wax rek li nga xam ne yàlla moo ñu ko digal pour ñu wax ko ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci ñàkk kenn ci ñun ki nga xam ne ñàkkuñ ko ndax ci boromam la dem ndax ñun ñi fi des yàlla moo ñu moom kim jëlit moo ko moom te anam bi ko jëlee tamit anam bu rafet la te bu ko neexoon jël ñu ñun ñëpp it te kenn sañu te wax benn baat waaye daal xol yi moom tey fees nañ lool ak naqar waaye làmmiñ yi duñ def lu dul tudd yàlla ndax kii di dem nii bëggutoon dara du dul tudd yàlla cheikh ka bu baaxum jullit xaqan cheikh ka baaxum taalibe tijaan xaqan cheikh ka bu baaxum soppe ñëpp lim nekk soppe ñëpp moo tax jour ouvrable lañ nekk nawet lañ nekk ñëpp ñëw nañ teewal ko ci bésam bii kenn ku ci nekk ci ñun rek boo tax taxawoon fii di wax danga wax lu ëpp li nga xam ne ne moom lay sa morom di wax ci mbaax ci relation bu rafet ci jëflante bu rafet doy na ci rek dem bu dog-dog bi bi mu amee président daayira mbaa ngi nii bi ma ooyee wax ma ma ne xaaral ma jokkoo ak sëñ Madi def ne ma lépp loo nekk bàyyi ko kooku sama taalibe la te ku ma gërëm la te ku ma gërëm la te yàgg naa toog ci kanam sëriñ bi seriñ bi mu ne ma defal nangam bu ma yeexee am na ci yoo xam ne foog naa misbaax mi fekkee na ko mu ne boo ko defu rek ma oo baaxum mu def ko baaxu moom sama taalibe lépp lu ma ko wax mu def kon nag moom am na loo xam ne ñun sax amaguñ ko ndax sëriñam gërëm na ko te mi ngi dund kon nag yóbbaale na ngërëm sëriñam jullit la lépp luñ koy yaakaar ci mbaax mi ngi jëm fu baax amee njëriñ yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko jam fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jugee yàlla bu mu fekk fitna te yàlla bu mu bàyyi fitna njaboot gi mu bàyyi ginnaaw yàlla na ko ci teg loxoom ci barke Maulana Cheikh Ibrahima ñun ñi fi des ñëpp yàlla na yàlla guddal suñ fan may ñu wér ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak moom war koo gunge ba Medina yàlla nañ yàlla yóbbu ci jàmm indiwaat ñi ci jàmm ñu fekk ñëpp ci jàmm tambas mbas bi yàlla jeexal ko ci adduna bi ba mu jeex takk takk te yàlla jeexal ko te bàyyi ñu bi ci barke Maulana Cheikh Ibrahima Niass sunu sëriñ a ngi nii Cheikh Zeynal Abidin wax dëgg yàlla moom tamit wóllëre Cheikh Kabou baaxum na démb bi mu déggee xibaar bi daf ne ma inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Cheikh Kabou moo yónnee audio boo xam ne sax ko waaw ma ne ko yàlla kon def na li ko soob kon tontu bi da koy yónneel yàlla kon nag sëriñ bi jaale ñun dañoo baaxoo ne bu ngeen teewee rek kaddu yu ñu am mooy kaddu jaale leen yéen ndax bu ngeen toogoon seen kër ñun ñëppay ñëw jaale leen kon bu ngeen ñëwee bokk ak ñun métit bi lii rek lañ man ab sëriñ lii rek la man ci taalibeem bo amee naqar ñu bokk ko bu amee bànneex ñu bokk ñun ñu ngi leen di ndamoo ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla guddal seen fan may leen wér Cheikh Abdou Ndaw ngi nii Cheikh Baye Cissé ngi nii monsieur Bakhoum a ngi nii oustaz oustaz eh monsieur le maire monsieur le maire mu ngi nii teew monsieur le maire bismillah monsieur le maire mu ngi nii teew déedéet ñun suñ sëriñ moo ñu jàngal ne bu ngeen ñëw rek yen yéen kilifa gi kon bismillah non bismillah mën nga taxaw ne mu ngi nii teew kon waaw Cheikh Cheikh Thiaw Taïba assurance sëñ Camba Ndiaye ñoom ñëpp a ngi nii teew ak mbokki taalib yëpp lii dafay wane li doon bàyyi Cissé di wax rek Cheikh Kabou Baye Lam taalibe Baye Lam kon bi mu ko waxee ñëpp ñëw nañ wan ko ne ko ñun tamit yen lañ am kon nag ñu ngi leen koy jaale yéen ñëpp di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xaare jana ñu xam ne tamit Kaolack lañ jëm te tamit am na ñeneen ñu xaar ku ci nekk rek jël kaddu njaal Serigne baa ngi nii su paree mu ñaanal ñi moom dafay ànd ñun ba Kaolack parce que nee na lii mbiram la moom mooy ànd ak ñun ba Kaolack kon nag kaddu yooyu lañ amoon pour présenter ko mbooloo mi kon ñu ngi jaale ñëpp. نيغي نيانال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته برهام باء وراء الف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جوخ نيوي